li dal tey ci université de Thiès bi lu tiis la lu ñu métti la ñun ñëpp en tant que étudiante koo xam ne dafa amoon ay rêve am yaakaar ci moom mu nekk yaay ci ñii sër ci ñële tey ji ñu jël ko ci ay raison yoo xam ne kenn mënu koo qualifier faat bakkan tout dafa nekk loo xam ne kenn mënu koo baal asumalaak bi mu doonee jigéen nga xam ne tey jii mooy téye suñu réew tey jii après moom après ñi jot a jaar peut-être que sama tour lay nekk suba peut-être keneen ku ma gën a jege donc tey dafa wax si ku nekk si ñun ñu jóg ci loolu balaa affaire bi duñu ëpp loxo ñu ngi ñaan nag ñi nga xam ne ni que ceux qui sont de droit ñu lijjanti li nga xam ne ni que mooy meurtre suñu xarit suñu camarade ki nga xam ne ñun ak ñoom ñoo bokk lépp parce qu'on passe plus de temps fii ci biir université bi on est déjà une famille ñu lijjanti kaawam si nous avons indi c'est surtout deux points d'interrogation c'est-à-dire euh, qui sera la suivante sur cette liste après Aïsataka, après Yoba Balde, décapité après une longue liste de femmes donc nous la laajte kan suivante bi donc ñun luñu fi indi en tant que femme du cours de Thiès en tant que femme de l'EPT en tant que étudiante nous nga xamante ni ñun ñoo espace bi ñu fi indi juste naqarlu naqarlu li fi xew tey liste bi mu trop tamit bu mu dañ koy ranger rek euh, aux oubliettes c'est-à-dire ñoo ngi lim liste bu ñu paree bu suba ñu lem euh, terminé man pense que ni am ñu fi défendre les droits c'est vrai pour nit ku nek amna droit ñu défendre ko les présumés innocents ak les autres mais man damay laajte sama interrogation moy Mariam Diagne ak doomam biñ ñu ko suulaaleen ñooñu kañ mo len di défendre damay laajte Aïssatou Ka ak doomam bi mu duñ bi ñu ko suulaaleen ñooñu kañ moo leen di défendre donc euh, appel la buñu ñu lancé aux autorités yi nek ci euh, dëkk bi que ni li ni ñun dañoo war a tendre ci protéger les couches vulnérables couche vulnérable yi moom mooy ñun jigéen ñi moom mooy xale yi moom mooy suñu doom yi suñu jarbaat yi nekk au sein du campus ñuy évoluer ak